askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def faxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilah yi jàmm les échos dagg ca lang ga xëy nag daal di fësal kii di son excellence moo kii dellu di ñu xamal lu ñu daal kàddoom yu njëkk jibal na ko ginnaaw élection législative yi secrétariat exécutif APR la ko daal di xamle Macky Sall fëgg dënn ba rax ci dolli nag di xamle ni daal ma ne ko premier ministre bi gàcce ngalaama ci dollet ma ne ko dem le di xamle ni daal ma ne ko ndam laa ngi nii ndam li ñu bëgg ko ñu bañ ko trois cent mille voix lañ leen rawee de lii nga xamante ni nag ëpp na sax ca li nga xamante ni moom la ñu sàkk woon ci référendum bi bi yéen kay bi di ko xamle rax ci dollet mu dellu di xamle ni daal premier ministre bi ba tey wàccu waaye ma ne ko jox na ko te rax ci ma ne ko dolli di ko xamle ni ko daal confiance sama kóolumteem ma ne ko jox na ko duñ ca yam de xafa séene nag daal di xamle ni daal ginnaaw ma ne ko jàngat yan tey amal dinañu xool kenn ku ca nekk nag lan mooy sa wàll ci nar wi ak ko nan nga daal di doxee ñu jox la loolee ci biir nag vox populi du ñu xamal ni ñu ba tey ma ne ko Macky Sall ak loxo yi ca kaw mu daal di fëgg dënd ba ni ñu ko ngañ la daal ko am dañ ko ndax tuwaar la daal di crier rek ngay daal di wër ki nga xamante ni moom moo di lan chef de l'opposition ñu ne ab ful total la ca am vox populi daal di koy bind rax ci dolli nag dellu di xamle ni daal boo ko xoolee ba ci biir bu ñu sukkandikoo ci professeur Babacar Gueye na daal tànk amul ab loi bu nga xamante nii nag fi mu toll nii moo koy mandargaal boo ko xoolee ba ca biir mbir mi dana gën a jafe professeur Abdoulaye Dieye dellu di ko feelu di xamle ni daal amul ay critères yu nga xamante ni ma ngi koy déterminer te constitution beeg ko wala loi ko wanewul mandarga yooye nga xamante ni déterminer na nag kan moo kan nga xamante ni mooy chef de l'opposition Zoom Info di ñu xamal ni ñu ginnaaw bi ñu dukkee ci li nga xamante ni moo di législative yi kenn ku ca nekk yaa nga beru sa pegg ngir nag ko yuuxu ca ma ne ko victoire wala bokk nga am say réccu naam ma ne ko yéene kaay xëy nañ ko waaye Zoom Info ñëw nag di ñu xamal ni ñu Lat Diop daal boo demee ba ca géej waay ah mel na ni daal ma ne ko lam fa def ko nee na bu ni weng rax ci dolli nag mu dellu li xam le ni cëggaluk guy gi duñu toog fi ñoom di woote ni lan lañ ciy am ak ci dul am ndaxte njiitu réew mi son excellence moo kii xam na lépp te dana xam nu muy doxalee Dakar Time li ñu ginnaaw bi mu dajeek ko ki nga xamante ni moo di Moustapha Niass daal di koy joxat ma ne ko kóllëreem féetali ko ko ba ko daal di koy reconduire ci assemblée nationale mu jiitu ko ko dellu na nag daal di dajeek ña nga xamante ni ñoo ñooñu APR waaye yemul ci loolu de na nañu ne daal gouvernement bi am na lu ñu ci fësee ne daal di ñab ñabalaat ñu ni casting ba de ñu ngi ko fësee tëggee nag ca màkkatal mu karam ndaxte umra la njiitu réew mi nag fësee daal di dem ci diggante ma ne ko fukki fan ak juróom yu mu daal di amal ci ay vacances annoncé nañ ko sax Espagne waaye njiitu réew mi ba tey jàpp nañu ni gouvernement bu yees bi ña nga naan fa ah Moustapha Guirassy mën na caa bokk de libération yéene kaay ni ñu Macky sàll daal loo ci mënta dégg Abdoulaye Daouda Diallo du ko weccoo kenn loolu nag ku yéene kaay bi xëy na daal di koy fësal rax ci dolle ko mu dellu di xam le ni daal la nga xamante ni gagné nañ ko ci législative yi duñ ko wax bu ni weng la laas ci yéene kaay ni ñu xalaas Macky ak kan mu ne ah Abdoulaye Daouda Diallo ah félicité na ko de di wax nag Abdoulaye Daouda Diallo mii kon moom nag moom ma ne ko duñu ko cam-cam waaye réew mi quotidien ñëw na ni ñu Amadou Ba cëy bu pertoon tam Dakaaru ñu ni sacrifié lañ ko defoon de waaye ma ne ko génn na ca bataille ba nga xamante ni nag tax na mu am ca ndam ñu ni loolee nag ma ne ko moo ko daal di sauvé maa koo taxaw Sénégal di dénoncé ni loolu boo ko gisee nag achat de conscience dong moo ko may ndam loolu tekki na frotte yu ni rumbalaat ca suuf mayel ba nga xamante ni nee na weng ni démb moo di lan cap de bus central ba nga xamante ni na fa fa seene indi nag perturbation ci li nga xamante ni moo di courant bu doy bi waaye Sud Quotidien ñëwaat ci langue politique gi di xamal ni ñu loo ca mënti dégg it nee nañ Moustapha Fall Thié coordonnateur Macky nee na nag li nga xamante ni moom lañu ñu séntu woon ci député dépassé nañ ko largement ak seen représentativité Mawlud jaxate bu AFP ni Sénégal ko jar na sacrifice yi nga xamante ni moom lañ ci doon def Moussa Sarr porte parole LD ni ñu nag ñoom de lañ doon souhaité am mëne ko plus d'élu wante ñu ni yàq na ay wax ndaxte nag boo xoolee ci Miliane Mendy porte parole RSD bu section Ziguinchor nee na nag ñoom lañ doon souhaité moom moo di lan am le quotidien yéen bi ñëw ci atum ba jàpp ñëwaat ci xayma yi nga xamante ni natt nañ ko ndaxte jamonoy PS boo leen ko fàttalikoo la taux ba daal di tolloon ci 2001 ak ko 49 bi daal koy fësal ci xëtam bu njëkk Cheikh Seck député Benno Bokk Yaakaar ni bu fekkoon Khalifa Sall ànd nag ñun dina am au juróomi député yoo xamante nii nag ci ab peggam lay feroo waaye nag ñëw di ñu xamal nañu Ousmane Sonko ñu ne nag de biñ ne ko de réserve moo la war fi mu toll nii nag am na droit de contrôle du gouvernement Ousmane ñu ni peuple bee ko engagé moo ko embauché yéen bi daal di koy xamle di ñu xamal ni daal loo ca mënti dégg moo di fi mu toll nii nag réel politique ba taxaw na Ousmane dafa fësee ne dem ca pencu ndaw réew ma waaye tamit ñu ni yàq bureau ya nga xamante ni vote Touba ga nga xamante ni nemmeeku nañ ko Serigne Assane Mbacké ak ma ne ko Mor ma ne ko police teg politique gi daal ko mayel bët yéen bi l' évidence ni ñu Souleymane Ndéné Ndiaye du premier ministre Abdoulaye Wade woon de mu ni ah kay mu ni kii di ma ne ko Idrissa Seck mu ni ko ah kay waaye mu ni Mimi mu ni bu Macky Sall waaye nag ëllëgu ma ne ko ñii nga xamante ay ancien lañu mayel bët yéen bi ak Souleymane Ndéné Ndiaye mii nga xamante ni bi xëy na ci ay mbiram la solo yéen ni ñu mbayum ceeb ñëw na nag ci 37000 ceeb daal di dànk ni ciib ciib ànd ceeg ko ndawal jën fi mu toll nii nag dafa daal di manqué prix ba daal di yokk yéene bi daal di koy xamle stat ni ñu bu ñu fàttali ko kii di Fadiga ak gauche ba yéene bi day dellu si waat ci yeneen yoo xamante nii nag gis nañ ko mu di Sankharé ak Juuse mayel bët yéene kaay bi am ca lu la leer kan 2019 bi ayatu ma ngay répondre nag kii di Ahmad Ahmad ni ko à l'heure actuelle Cameroun nag disposé na lu tolloog cinq stades suñu lamb yéene kaay mot loolu ak de 29 octobre la ñu joxe loolee Papa Sow ama 19 novembre waaye nag yéen kaay bi di l'observateur ñëw na ci leneen loo xamante ni moo ñeel kan mu ni kan mu ni kii nga xamante ni moo di waykat bi di Ami Collé Dieng yéen kaay bi dellu di ñu xamal ni ñu daal ca ndungur si la nekk de fi mu toll ni nag ba mu janoog ki nga xamante ni moo di doyen de juges maître Ciré Clédor Ly nee moom ma ne ko sàkkuwul ak njéggalu ndaxte nag dañ ko daal di tée te tée gañ ko tée ko jaarul yoon noonee ma ne ko jaay présidente du CDP di ñu xamal ni ñu daal mën naa porter plainte ka nga xamante ni moo diffusé loolu di enregistrement ba ñu tàbbiwaat ci l'évidence mu ñëw nag ci Samba Bathily yi jàll mu dellu di xam le ni daal amul benn wakaam waa bu nga xamante ni gis nañ ko mu daal di faat ab mbuur waa yéene bi di ñu xamal ni ñu daal ñoom fi mu toll la ñuy sàkk moo di ñu tee di bàyyi ci seen i ñooñ les échos ñun ci xibaar bu nga xamante xoromu na lool ndaxte nag kii nga xamante ni Malick la seen nga dee ko yàq ndax sant wa waaye xam le nañ ni daal ginnaaw bi nga xamante ni nag moo di coro la da ko daal di teg dil te ko di tegat gisu ko ko ñu ni nag moom la mu daal di mujjee moo di lan toj ma ne la jël nag daal di ko koy xoqatale yamu ca de ma ne ko jot na ko daal di frappé dóor daal ma ne ko ñaar yoon waaye ma ne ko noonee la jël ak kuur ngadd ko ko laata moo ñëw ak moom fi fital sox ga fekk na ko ci am del déet tuy lañ cay dégg yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari ko kenn ngëpp na ko ñëpp comp as laf ci yéene kaay jaa jëf